dañuy waaw dañuy live dañuy live donc wax nga ko titre bi déjà rek euh, wax na lépp mhm. ndax euh, ñi ngi wàcc ci ay élections mhm. waaye ay surtout lu ñu am ci ay candidats yéeme na. te candidature yi pareeguñu ndax am nañ plus voilà plus d'une centaine mhm. ci réew moo xam ne ni 17 millions la ñu toll ay satu mhm. loolu tamit jaar lan moo ko waral dix mille loolu parce que am nañu ñu euh, émergence euh, appellation bu bees ay candidats publicitaires <laughs> ay ay ay candidats commerciaux <laughs> uh-huh. waaw loolu loolu dix mille lu waral euh, ñu ñu bëri ñoo xam ne dugg nañ nekk nañu candidat te mu leer leen ne parrainage duñ ko am mais lan loolu la mais mais man li ma ci naqari ay satu li ma ci naqari ay satu mooy dañuy fausser le jeu politique dañuy tardel euh, je jeu politique bi finalement du l'air parce que plus d'une centaine de candidats té yow mi dem di outil parrainage. xam nga li xel ni sax do am 100 parrain. yu mat wala cinquante parrain yu mat nga tardel nit ñi ci walum lepp lolu déjà rek àq la mm-hmm. mais nag. Euh, comme politique ça existe des appétits ku ne ñu bëri fi bu ñuy dem ñom sen akulay taala xamna duñu mais def d'adresse agenda politique ñi ñom ñi ngi bëgg exister politiquement parce que su ku le parrain nga ko ay peut-être que ngi su après la présidentielle ñu oui diw diw euh, donc poste ministre wala à défaut ñu caser ko quelque part ci ay a une structure ne ni état bi moo ko fi créé euh, gouvernement bi fi toog créé pour recaser tout simplement la clientèle politique te lolo, tey Aïssatou daf ñu am lu bëri lu ñu jural té conséquences yi njeexital yi mënuñu ko sax mesurer parce que à chaque fois dañuy dégg di wax ni le train de vie de l'état lolo, bokku mm-hmm. na ci ay satou amna ci ay structure yu bëri ni ñu for ñu tek ko nous former ko mais la nous ñu former c'est pour caser la clientèle politique parce que day am ñoo xam dañ la élection surtout ci wàllu ay parrainage ki ay lu kenn xamul mm-hmm. mais wax dëgg yàlla ni ñu la politique Sénégal war nañu Nous avons mm-hmm. gis que la direction générale des élections indi ay innovation yu et mm-hmm. espérons que ni euh, innovation yi du du du du euh, problème parce que déjà xam nga ni am euh, numérotation parce que numéro numérotation boobu ñu bëri jàpp nañu ko genre piège parce que léegi euh, euh, maye parrain. amatul amatul mën dëgg la ñu bëri ah. te a nar a mm-hmm. jii nii euh, soo numéroté par exemple nga def Khalifa Sall numéro 7. Mm-hmm. tey jii nii est-ce que Khalifa Sall bu nekkul candidat exemple laa joxe. Mm-hmm. parents yooyu mëntu ko versel keneen. Mm-hmm. xam nga te loolu dafa mel ni leerul. Mm-hmm. parce que même candidature yi ñu gis biir Pastef ay quatre candidatures cinq candidatures mais tey bu ñu ba ci biir. Mm-hmm. mais ñoom mëntuñu mayante pare. moom mëntuñu mayante pare ba pare ba pare man foofu limee euh, euh, nañ taxaw ci euh, candidature yu bëri yooyu Pastef ndax gis naa ñu bëri ci ñoom ñuy jubilé naan stratégie la stratégie la. waaye dama man sama question mooy pour sa xalaat est-ce que stratégie. gagnante la payante. Mhm. ndaxte mooy li nga wax sànq ndax numérotation boobu nga xam ne mhm. di galgal bu bees bu ñu dugal. Mhm. Euh, euh, ci euh, parrainage yi. xam nga ñun tam suñu homme politique yi. dëgg du ñu gëstu. <laughs> dëgg la du ñu xool sew sew yi nekk bindu sew yooyu ñu bind en petit caractère du ñu ko liir. du ñu jéem du ñu ay juriste. dégguñu droit dégguñu <laughs> galgal. dëgg la du ñu jël la peine le soin. jël fiche yi dem wan ko. un sachant mu liiral leen xoolal leen ñu mën préparer en amont comme en aval defuñu ko léegi euh, tey bu ñu ñëwee euh, Pastef ñëw ñëpp doon xaar plan B man bokk n'a si ñi nga xamné ne kon nañ né ils ont bien fait ñu présenter benen candidature budul euh, Ousmane Sonko mais candidature multiple ak surtout galgal yu am ci parrainage ndax tay ji est-ce que ragalo mu am ben éclatement sen électorat ndaxte képp ko parrainé te jàllul parrain ba parrainage ba yakuna <laughs> à coup sûr Aïssatou parce que xam nga man bima ma système de numérotation bi dama ne est-ce que du direction des euh, générale des élections amul lu yek? Mhm. parce que euh, plus de quatre candidats mhm. euh, ci ñu melni wa keur Ousmane Sonko yi mhm. est-ce que dina leen profiter est-ce que stratégie boobu noonu dina payante mm. loolu la bu mm. jara parce que euh, li ma ci xaw a ci contradiction rek moi, nous kenn ku nekk uti nga say fiche ni da ngay euh, ut parrainage mm. mais nee nañ soo dégloo seen wax Sonko c'est un plan A c'est un plan B c'est un plan Z loolu peut-être que lu ñuy wax ci kaw la rek pour pour uh-huh. pour pour peut-être aussi gëlëmal seen adversaire parce que tey bu fekkonte ni euh, Sonko ñëpp xam nañu tey ak situation yi mu nekk ñoom wóor ni du nek candidat ah, te ñom si seen biir amon nañ tuuti division mhm. ci ay xalaat parce que dama doon dégg ñenn ñi ay ku ci melni Diallo Diop ku ci mhm. melni La Lassana ñi saxo ñom commencé won nañ di wax ni mhm. il faut ñu am plan B mais après nga gis El Malick Ndiaye ak benen ñeneen ñi nga xam te ne dañu dañoo dañu dañoo gis ni Sonko mooy seen plan A B C lolu xeyna stratégie bu ñu tek la maintenant nak ci quatre yooyu xawma cinq yooyu ñu tek ñom si seen biir est-ce que c'est payant ay man lima lima lima djahal encore une fois mooy numérotation boobu noonu mm-hmm. ça risque de poser beaucoup de problèmes dina indi problème yu bëri parce que tu as bëggee vers sa parrainage jox ko keneen ñu ne du am mm-hmm. dispersion électorale ñëw na mm-hmm. xam nga encore beneen problème boo xam ne dafa am ci parrainage te ay euh, problème kenn du ko reporter da nga koy problème su amee da ngay taxaw saafara après nga dem ci leneen parce que boo fàttalikoo opposition bi dañu boycotté won ci ay waxtaan yu amone ci walu parrainage bi. demuñu woon xamuñu woon. xamuñu lu bari té problème yoy nonu mo leen continuer di leen top ba fi mm-hmm. parce que démon nañ ba ki nga xamné ni moy maître Abdoulaye Tine def ay djégo yu am solo yobbu euh, décision wu parrainage bi ci cour de justice de la mm-hmm. CDAO mm-hmm. ñu jox leen dëgg. terewul état bi dafa xol liko neex. mu def ko tay lan mo baisse. on nous parle d'innovation, mais lan mo innover ci parrainage bi parce que ay sot li gëna graw garaaw mu attiré sama attention muy bu njëkk ba l'électeur day engagé wu à travers ci benn fiche bind turam date de naissance am mais bi yoon yow da ngay retirer sa fiche dem sa kër photocopie ay carte d'identité ñeu remplir lan mo ci lan lan lan ci lan mo ci baisse finalement. te loolu ñoom. xam nga mën na pandaw ba. mais nan la mëna contrôler aussi affaire doublon yi. Mm. doublon yi bale passé mm. waxon nañ ni dañuy sanctionner képp ko xamné ni gis nañ la ci ñaari nga paré na ñaari candidat ñetti candidat té sanctionné wuñ kenn Tay bu doon amna plus de transparence man daf ma doon neex par exemple ben candidat ñëw nous rejeté ay ay parrainage am euh, parrain doublon mais ñu def euh, publication de façon très transparente par exemple ben coalition ni len yeen doublon yi diw ak diw ak diw la mhm. logique mais euh, gis nga ni normalement euh, am na ab rencontre bo xamné ni autorité yi ñing ci waxtaan ak les partis politiques pour gëna sensibiliser ci nouveauté bi nga xamné mo am ci code électoral bi té japp naa ne mbir mi ay sotu du lèr ci sen bopp. non non du leer du leer. ñoom tamit dañoo rete mooy li nga wax rek dañoo rete le coche ndax réunion yooyu ñu doon def réunion préparatoire yooyu. tout à fait euh, euh, ñi ëpp chance moy ña tok féké ko poser sen question fexé ba def ay amendement. c'est ça mais légui dimi